on a huit listes. dañ demaat Mimi na ñëw la tête de liste de Yewwi na ñëw pardon même même même au niveau départemental Dakar nañ demaat. débat aussi xam-xam la de. est-ce que sama gars yi voilà ils sont assez euh, <coughs> voilà outillés pour. Euh, répondre waaw non ça veut dire quoi. <laughs> Ah. le parti au pouvoir toujours day am n'est pas à l'aise dans ce débat parce que ñu waxante dëgg. surtout tous les autres dañ koy songandoo. de un. te en plus donc il est obligé le représentant du parti au pouvoir de se justifier <laughs> loolu loolu aussi c'est un problème da say justifier wu mais en plus aussi ñu waxante dëgg les leaders bu ñu ñëwee euh, taxaw mais kan ngay ràññee mhm. bu fekkee du Ousmane Sonko la tête de liste nationale le suppléant la euh, na ñëw débattre avec les autres mhm. mais nag quoi qu'on dise il faut qu'on prépare ça dañ mhm. ñoo koy débattre euh, fan la war a demee Euh, on va prendre Ndiap euh, mu mu animer débat <laughs> mais xam naa ni du point de vue stratégique. Ousmane Sonko a plus à gagner dans ce débat. Euh, c'est c'est sûr c'est sûr cette cohabitation à l'Assemblée nationale. musul mhm. am au Sénégal. ak fu mu toll nii mën nañu wax ne animosité bi nga xam ne nemmeeku nañ ko aussi si langum politique bi au Sénégal est-ce que ça sera une bonne chose aussi pour la marché du pays. amoon na amoon na benn jour. benn jour entre 2000. cohabitation. ah bon entre 2000 et avril un peu d'eau. ok euh, la régie un peu d'eau pour euh, voilà monsieur <coughs> Babacar John maa ngi koy solal wax wax wax wax wax waaye c'est vrai naa ko ba mu xaw a. da ngeen koy dagg wala wala direct lañ nekk. Ah, on est en direct. excusez-moi Ami. <laughs> na ah, naa ko on est en direct naa ko on est en direct euh, Babacar. mais euh, mais xam nga lan moo tax cohabitation amoon fii. Ah, ah. parce que Ablaye Wade dafa jël le le pouvoir. Uh-huh. au moment où. Uh-huh. Euh, la majorité parlementaire. Uh-huh. appartenait au parti socialiste. ok en 2000. Ablaye Wade est venu au pouvoir. en 2000 en avril. il a fait sa prestation de serment. en avril le 3 avril 2000. assemblée nationale waa waa PS ñoo fa ëppoon ñoo amoon majorité bi. Mhm. est-ce que tu comprends. Mhm. léegi ñu dem ñu dem euh, élection législative mi ngi am 2001. Mhm. on avait un président l'exécutif dirigé par Ablaye Wade assemblée nationale euh, PS a ko gagné woon. ok. mais pour mais pourtant on a joué. ah finalement looy la. comme chez ce film Kiriko bi l'eau est là. ndax wax loo nga moom sonn. ah mais noonu la. Euh, man engrais rek damay da ngeen da ngeen am contrat ak moom wala. amuñ benn contrat. ah non ak ah, moom je suis là rek di use sama gars yi. j'apprends beaucoup avec vous et ça me fait plaisir su ma euh, vous pouvez voir en toute euh, tranquillité voilà ñu yeggali euh, si cohabitation bi. Ah, ah. non je crois que amoon na moment boobu mais on a beaucoup aimé le comportement euh, euh, assez responsable. Mm-hmm. c'est vrai de Abdoulaye Wade mais du et mm-hmm. parce que le parti socialiste moment boobu bu ko bu ko neexoon du jàllale dara. tu te rappelles on a voté un référendum. Mm-hmm. Euh, moment boobu avant ñuy dem élection législative. Mm-hmm. mais mais mais mais je veux dire l'Assemblée nationale était là. Mm-hmm. parce que Ablaye Wade est-ce que référendum bi aussi noonu la mënoon a jaarale pou jàllale parce que wóoluwul woon peut-être la majorité. Mm. parlementaire socialiste. ok mais loolu amoon na. mais ah. c'était vraiment une cohabitation assez douce. voilà ah man de xaw ma woon. bilaay léegi nag ba 2001 nag. Uh-huh. ñu dem élection législative après. Euh, Ablaye Wade le PDS Sopi euh, la coalition ah gagné jël majorité au niveau de l'Assemblée nationale ci la exécutif Ablaye Wade en même temps aussi jël jël jël assemblée. Uh-huh. loolu c'est clair mais c'était mais pardon li ma su fee am. Uh-huh. bu fekkee day am. Uh-huh. ma su fee am te li tax aussi euh, du gaaw a am. mooy le mode de scrutin au Sénégal je crois que loolu yenn opposants yi ñu koy wax parce que en fait. Euh, bu fekkee euh, yow danga jël euh, da nga jël raw gàddu dans les départements. Mm-hmm. si départements yëpp ku ëppale benn voix yaay gagné. Ah. te xam nga c'est très difficile d'avoir c'est ça d'ailleurs que que que Yewwi ak Wallu veulent régler <laughs> daal def des alliances stratégiques au niveau des départements. Mm-hmm. ñu boole seen seen seen doole. xam nga wax naa la léegi nii Mary Teuw Niane ak kii bu ñu àndee Saint-Louis mais mm-hmm. dans le département du yomb parce que la commune. souvent les opposants euh, sont très forts dans les communes. Okay. Les communes sénégalaises. Mm -hmm. Mais malheureusement, dans les départements, il faut que le régime du profito. Mm -hmm. Parce que nous peut-être les moyens nécessaires pour beaucoup de localités, euh, euh, les amours assez, assez reculés. Lolo mm -hmm. et le parti au pouvoir pour ko ces coalitions. Mais je crois que l'enjeu de taille, euh, ces élections, yi il faut que nous baissions. man je crois que c'est le pourcentage de Benno Bokk Yaakaar. ok bu muy am ci yi si le président man l'enjeu de Mimi Touré c'est ça en fait. Ouais. c'est de faire gagner le président la liste Benno Bokk Yaakaar avec plus de 50 mais on peut dire le président parce que ñu bëri fu mu toll nii mais loolu la problème mais ñun pour faire gagner à la coalition du président Macky Sall. voilà ak tamit troisième mandat bi nga xam ne gars yi ñu ngi koy ruumandaat non bu amee plus de 50 pour cent moom. xalaat naa ne si loolu lay dugg. waa ji lay dugg waaw moo tax l' opposition. mais c' est bien j'aime bien même on a éliminé les titulaires. mais l' opposition est présente. est-ce que seetlu nga loolu. c'est vrai l'opposition est bien présente. ah mais boo xoolee sax carrément bu ñu xoolee rek. sondage si ay bët. la liste Yewwi Askan Wi mun nañu wax ne gagné nañu affaire yi. yow yow day mel ni yow yow nga faral non je blague je blague je blague non non wax loolu mënuñu wax loolu xam nga pourquoi ñu wax loolu xam nga xam nga lu tax mënuñoo wax loolu euh, ci bët wax naa la ko léegi. ci bët ñuy toppaate. non wax naa la léegi euh, j'ai j'ai pris l'exemple je vais prendre l'exemple de de ma ville natale qui est Mbour. Uh-huh. Mbour le département de Mbour te plus de cent mille électeurs yow nga ñëw euh, nit ñi topp la nga def caravane. Uh-huh. il y a peut-être même des milliers de personnes mais yow demuloo Joal xamuloo ku ñu àndal. Mhm. demuloo caajaay xamoo ndax même comme moom la ñu àndal. Mhm. demuloo Saly demuloo Diass demuloo Ngekox. ça veut dire que yow drainer du monde dans la commune où il y a plus de monde. mais souvent ñëpp xam nañu ni fan ñu gagné xoolal les élections à Dakar. Mhm. de 2017. Euh, il y avait une différence de voix énorme de 3000 voix à Grand-Yoff. entre euh, taxawu Dakar. Mhm. ak Benno Bokk Yaakaar. énorme ñu dem Parcelles Assainies presque ballottage. Mhm. Benno li mu gañee du dara. Mhm. balotage cent cinquante voix xaw ma donc quelques quelques de voix alors que on avait de documents yoo xam ne nu ñu koy woowee pour gars yi vote procuration. à gogo ça dire quoi donc euh, Benno avait presque perdu mais à Yoff de l'ancien maire <laughs> euh, Diouf Sarr. ñu am plus de 3000 voix différence à Yoff et c'est à partir de là que Benno a gagné mhm. c'est presque le soir que Benno a su que gagné na gagné na taxaw taxawu Dakar mhm. donc les élections législatives se jouent surtout parce que dafa vaste c'est pas la commune mhm. c'est tout le département loolu aussi il faut que ñu bàyyi ci xel euh,